ndax comédien bi di Kouthia dafa génn ca TFM laaj boobu moo samp ginnaaw ba ñu gisee ki di Samba Sine daal di amal ab statut di xamale ay fansam dafay démissionné ci groupe Futurs Médias nag Kouthia di mel ni kuy laaj kuy tontu laaj yu ana moo tax mu bëgg a dem moom li mu xamle mooy mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci soi-disant oustaz yi maanaam di addu ci mbirum oustaz Modou Fall ba léegi amatul jàmm ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiite li la waral mu jël dogal ne dafay génn daal di démissionné ci groupe Futurs Médias ku caa nag yemul foofu ndaxte mu ngi wax di mel ni kuy ŋàññi waa Télé Futurs di leen xamal ni moom moo fi nekkoon ba dara doonutee dara tey jii nag bi dara doonee dara ñu bëggoo bu nu xataal waaye nag moom jën na lépp dénk ko yàlla suñu borom ak yonentam bu tedd bi laaj bi samp nag mooy ndax ku caa dafay bàyyi Télé Futurs Médias wala lii ab stratégie bu mu tegate la ngir mën a am ab pression bu mu teg ki nga xamante ne moo di Youssou Ndour